ايوه بسم الله đấy là cái đầu mình cái còn cái mình nó chun tay chun tay quay chân quay quay chân kia à chun bó xin đi à đi ra luôn trước asalaamaaleykum waa dund asalaamaaleykum waa Sénégal mën la jur bi borom kontaan naa ci abonné yi kontaan naa ci semi tey maa ngi fi nga xamante ni mooy Jolof Jigéen Jolof Jigéen nag dafa déplacé wu fa mu nekkoon waaye nag fi mu ñëw moo gën a garaaw muy Mbàkke ci station bi nga xamante ni mooy station EDK waaye nag li gën a neex li nga xamante mooy Issa bi euh, dañoo indi ay ginaar yoo xamante ni macha allah man nag li ma gën a neex mooy doo ñëwee da nga fekk ay xale yu yaru xale yoo xamante ni macha allah waaye nag li gën a neex mooy ba dana la xam da nga am mariage nga takk amoo boo ko defee doo ñëwee dana la defal ay service yu baax te ay ginaar yu baax ñoom nag yoo xam dañ koy saafa saaf ba mu baax te nag li ma gën a neex ñoom duñ xool ginaar bu wopp mukk ñu di ko jënd duñ xool xool ginaar ba mu baax ñu jox la ko kon nag gars yi ñu ngi ci woo ñëpp bépp wala Mbàkke Mbàkke ak ku mën a doon wala Faal Faal xeebuñu kenn xeebuñu kenn doo la ko jox jox la sa wàccuwaay xewlu xool lu a xam am nañu waaw olof Njaay feebar ndax lu ñu wax dañ naan dara soxla yàkkamtee xeex ku tax a fekk ab signal nga di ko dóor lay tooy ci la jug dama ne gars yi pirate di pirate di pirate na ñëpp dem toog. jërëjëf na waaye bisimilah jërëjëf bëri na waaye jërëjëf digg mii moo la mën. ne kii moo la mën kii. topp. ginaar daal ci raam xoo dañoo xom dangay mu dem. fii restaurant yu bëri benn problème la lu waatu ba amoon dangay dem lekk pare jël ay kiraan bi ci xolotox waaye bu ëmb da ngay lekk ba pare dootu doolaal doolaal ci ndax ñor bu ñor te xale yi set te civilisé baax yaru ñoo fi nekk. macha allah.